moom de daanaka jërul waa daanaka bu jàkkaarloon moom moom. daanaka egsi ngeen. Lamine de eksik. Lamine Lamine Lamine Waaw sant te la bokk barkeel yooyu waaye laxasaay la ci nag barkeel yooyu la ko laxasaay

ñaare tool bu yaatoo am lu ñuy tuddee joor am lu ñuy tuddee deg joor am lu ñuy tuddee a dem te dañuy soxla daba ak semmiñ te yaa ko yor yaa yor daba yaa yor semmiñ ku tëdd ki bayit bu fekkee dikkal te waxi ko mën a ñàkk bañ a wax waaye jamono yi rek ci gannaaw damaa waxoon gone yi ku ci jàng xasida ba dajeeg fu yonent bi almuntaqa na nga ma koo jëlal ci lim bu takk waaye fi mu koy waxee nag lil muntaqa tub ma yasurruhu bila nihayatin wa xidmati taqabbala boobu laa ci gën a wëlërante xam na koy ziyaare ko defee nag euh, li nga xam ne moom laa ëmb te ku tedd ki xam ko te nga nekkal ko yelu ak biral moo am moo tax du ma ko biral dama koy yelu li ma biral daal mooy yaa yore yi ci sonjaan bi lu mu bëgg a def ndax sonjaan bi la ñuy xamee jàmbaar joor dafa yomb boo amee dori jàll boo amee joor dafa yomb dina ko tedd ki defal nag xamuñu nu nuy sant moo tax jërëjëf Serigne Touba yi mu koy biral te ñi ëpp na dañ koy yellu waaye ñun mënuñu ko ñàkk biral ndax kafaytani euh, xayhaba ma jax jaxa min al layali fa shakartu ba jaxa jooju moo nuy yóbbee ñu koy sant nu loolu moom Mbàkke mënuñu la ko ñàkk a bañ a gaal leneen la ci biir nag ndem baatin la sirru la te yaa yor caabi ba koy ubbi foofu loon ci yem ba beneen yoon ndax itam nag eh, am na loo xamante ni bii kenn du ci biir mbooloo waaye lii maçon moom laa soloon ba may ñëw ca kër gu mag ja jàkkaarloog jumaa ja waroon faa ñetti fan te ñaar ya doy ma sëkk ba moon ma fa ma ko woon ba ñetteelu ba ñetteelu fan ba ma daw dem na kat loolu jarul ma koy firi xam nga lépp dëkk bii daal di Touba jamono toll na foo xamante ni bii daal wax dëgg yàlla am na sondaan ci sondaan bi lañ ko def foofu laa yem ba yoon ndax itam nag jërëjëf bañ ko ma netti li loo xamante nga lépp sax dëkk bi daal dafa lu fi waat dafa lu fi waat te itam mënuñu ko bañ a wax ndax nañ ci sa kanam danga nu mu gaaral ci tuuti dama bëggoon bu yii jàllee bu yii wax dëgg yàlla mulku ilaahi yaa xardana di saa tii jooju mu waxoon tubaab yi loolu daal te wax dëgg yàlla rajo inqiyaadal xisbi lillahi wahdahu dañ koy settantal bëggoon nañ bu yii jàllee daal wax dëgg yàlla nu taxaw beneen taxawin nun ndaw ñi ndax man du ma nangoo ndaw rek lay fas yéene doon ngir bëgg ko mën a liggéey karo bijaaw bi moo may feeñal lu dul ci ñaar fukk ak ci mbàkk ji laa keef ci laa di ko ànd ak ndaw waaye dëkk bii dëkk bii daal moom wax dëgg yàlla jamono toll na foo xamante ni bii weesu bu ma ñëwaatee waaw dëkk bi daal moom dafa am a def ndax ya xablu wa birtuha fa daal la amil kablu waaye nag dañoo toll ci jamono boo xamante ni bii moom dara ñoru ko lu muy tiitaroo dafa lu muy tiitaroo ci moom xamante ni bii faw nu jóg jógin ñun ndaw ñi ko defee yow boo nu bi lañ jëm jox nu sémmiñ bi ak dal jërëjëf loolu indi jërëjëf Mbacke Mbacke ñoo ngi di ñaan yàlla ñu guddal ba ñu nga yéene ñu ngi def bu baax yàlla moo ci lépp. Mhm. léegi nag dañoo ñëw ànd ak moom mu nekk suñu waa ji nekk suñu xarit. loolu nag mbaa dalal xel bu dul ndax li seen Tuubaa bëggoon. waxoon ni dëkk bi wajaalu dan maskana taallum وموضع الفكرة والتفهم وتثبيتا فيه جماعة التقييم الصلوات الخمس دائما يا حكيم يا وياكم kon gannaaw bi sa kilifa yu baax yi amee yéene ni université bi nga xam ni dëkk moom li koy suuxal li ko màggal ak li koy jëme kanam mooy xam-xam ndax al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jahlu yuxfidu baytan an siwa sharaf xam-xam boobu bi ésiwee moo loolu rek a nekk si te loolu mooy sëñ bi sant woon dëkk kon ni ñaan boromam ni ko wajaxlu dëban maskana taam nañ ko def biiru jamono ñuy bërëbu sàkk xam loolu. damaa jéggi lu man béy di dama daan noonu damaa jéggi lu béy di ndax kenn du ko toog moom di waaye waaye loolu lépp jublu rek. mooy comme yii day dem. te inna dalila naa mabniyyun ala naqli laa ala munaasabati naqli xam bu wér li ñu wax fu wér lañ waxee ndax seen bi. lu sëñ bi bind wax ko yamut ak lu sëñ wax ko. loolu ko ba na moom ni ñu àndal dañoo gis ngir mu noonu mu la ko waxee. te sëriñ bi ni laata xamloo say an bi ay ri suñu fal suñu sàkkul ci xam liñ gëm di ko bëgg ci kanam bu amul ndigal loolee bu ci mën na koo bañ a jëm waaye nag bu ñëwee ci sëriñ Tuubaa gaaral la ko sàkk ci yow ndigal nga ñaan ko yaa ngi xamul si ni mu ci bëgg yàlla ko defal loolu rek mooy tànk laa ci bëggoon a toll baal ma loolu laa jàll ndax euh, maa ko ne bi nga xam ne moom la ñu ko bëgg a tuddee xar nu ba teew ma ne ko jaru ko waaye ma ànd ak ko ne mhm. moom nag la sëriñ bi waxoon yoon tam salaam salaam rek ni ko aya xarakaat wa sakanaat sax lépp jox naa ko yàlla moom la si la nit ñi. te tey jii foofu ñu yaatu ko jaaree ci yow li mu bëgg yàlla nangu ak nangoo joxe kër ak nangul Sëriñ Tuubaa ak doon taalibe. di la ko sa mag ne mu Cheikh Mamadou Moussa Moustapha yàlla yàlla ay yërmande ay leer ak ci moom. maanaam ci nga nekkoon nangul ko ba kër gi yàlla jox la ko tey. kon nag képp kuy murit di taalibi wax ma la murit waaye kuy wax asodaan lay laay laay di julli am na ci cofeel am na ci yow bëggeel bëggeelu xol boo xam ne dégg na ndax nit ñi seen xol yi kenn ko yàlla rek ko moom te yàlla bu gërëmee ak jaam te yabal malaayka mi nekk ñaari bos ki ko tedd ki moom moom ko tedd ki moom mi moom eh, ki koy bëgg sa waaw dañ laa jël dañ laa dañ laa ko dañ laa jël dugal ko dugal ko ci dañoo jël leeram dugal ci sa xol maanaam moom mi ku jullit ak ku dul jullit ak ñëpp ñëpp ko bëgg ndax dañ leen ko sañu ñoo bañ yàlla moom nit ñi jox ko Sëriñ Tuuba mm. moom mii mm. mënumaa wax ci moom mm. ndax li ma bind ci moom bari na bari goo xamante ba toogagum ci jotaay bi ma bind ci moom bari na bari goo xam ne mënumaa wax moom ndax almuntaxaa ji tur yi li ñuy matti li ma ci ko tedd kii defal mu yéeme ba nga xam ne mënuma ko wax boo mooy mbiram dafa sori ci man ba nga xam ne dafa am ki ñuy wax muntaxaa géey ci jamonoy sëriñ Bara sëriñ Bara doona xale dama ko waxoon ne ko man sama mbir xilaafa si muntaxaa lay xaar nag eh, mbir mooma nag. Hmm. wax dëgg yàlla eh, moo sa rëcc. foofu laa xam ne dafa biire. Hmm. waaye lu màgg waxoon de. Hmm. moo doon xalifa. moom mu montre jox ko Fatou sama mbir man. xilaafa sëriñ Mountakha bi nag xam ngeen dégg ngeen li ma junj fii. ay code rek laa joxe dama junj rek. waaw dañ ba xam. dañ ko bàyyi ba xam li ñu koy laaj. li ñu koy laaj. raba bi ñu koy laaj. nan ko déglu ba xam rek. yow da ngay wax li rek bàyyi. waaw jeex na jërëjëf. ah. loolu gànnaay a ngi liggéey. man dama koy ñaan ko tedd ki ni ko. maag sama ñëpp. nanu nangul ñun ñu dugg ci miimu Ahmadoom. bu ñuy dugal nag ba. jërëjëf. loolu ah. boo duggee ci miimu Ahmadu googu rek da ngay dugg ci miimu Muntaxa waaw. genn miim gi. waaw man genn moom laay wax moom laay a wax loolu laay wér. man li may fajoo bu ma feebaree. ak alif boo xam ne ku tedd ci moo mooy sama kii li ñuy tuddee perfusion. perfusion alif gi ah man noonu laay fajoo. macha la lahu xayru man shafa wa man hada wa ka shafa. maanaam booy tëj. jëlal benn tombam benn nuqta booy tëj dara boo bëggee tëj dara jëlal benn nuqta boo xam ne waxuma foog lu ab arab bindee feneen déedéet loo xam ne waxi ko tëj la bu fekkente ne nga bëgg a tëj dara jëlal benn baa boo xam ne ab baam wala. tomb boo xam ne ak tomb boo bëggee ubbi dara wutal ak niimam wala ak waawam foofu la amee foo déggee ne am na ci man yoon rek ku ko te te yàlla di leen a may nag dëgg la waaye lam yan hu nii walay sa yan hu jasadi daxi tabibi aw azan aw mufsidi waaw benn xaraf boo ca jël waaw boo dafa ak jàll bi dañ ko koy bàyyee nga bàyyi fi mu la a faj te mu tee ñu ngi ziar. waaw tey jégalu ndax. waaw ñi ci biti ñëpp. rek. waaye fi toll gis la ci zaayir nii. daanaka mën naa ñàkk. waaw nekk rek. foo nekk rek. li li liñ def yow mi ngi wër. dafa aajo ñëpp. moo tax daanaka jarul la di ko jege dara man fii ma fii ma toog nii sax maa ngi koy leer na am na loo ma ci ah, def. waaw évolué foofu la def ci lu ma ciy werante. am na loo ma ci def waaye man ag laxasaay laa koy def. Ah, waaw waaw. Ah. toog di julli raaket nanga ma ci nanga yooyu ma ci def. Hmm. naan daal ak laxasaay la ci man. Hmm. te itam li ci kanam rewu ci hmm. bi daal maskani tuuba abad ca kanam. waaye nag man nag man am naa sama yéene bu ma si ñëwoon lu bari ci moom lay xel. amiin amiin bay sotti ñaanal ko rek ñaanal ko rek amiin. Thank you. Sen bak. Thank you. ñi nar a ñëw nag wut si saa yi bu ñëwee bu ñu fekk mu ruus